lañ koy daal di defaree euh, donc pour képp ko nga xam ne danga am problème de peau problème de visage euh, donc surtout ñi nga xam ne euh, dañu jëm mag daal di laal cinquantaine yi donc da ciy daal di baax parce que ñoom des fois rek seen kanam yi dafay daal di commencer di ras ndànk-ndànk même ñi nga xam ne aussi dañu daal di xeesaloon ba am mer gaynde kon xale yi ni ñu koy daal di woowee da koy daal di dindi donc dañuy ànd ak complicité Weuze mu daal di ñu expliquer di ñu accompagner ñu daal di expliquer rek li nga xam ne mooy suñu astuce su tey donc comme ni ngeen ko gisee nii rek lii ak concombre la concombre boo ko raxasee ba pare da koy daal di euh, râper da koy daal di gratter du moins euh, ci grattoir donc boo leen paree. Euh, si euh, bi ngeen koy euh, nii donc dañuy soxla li nga xam ne mooy ndox bi à part mais aussi nañ soxla li nga xam ne mooy euh, concombre bi nga xam ne moom la ñu daal di craquer à part donc lii dañ koy daal di segg comme vous voyez ñu daal di ko segg donc utiliser li nga xam ne waaye daal di ndox bi dañ koy daal di tegee de côté donc ñu daal di jël li nga xam ne euh, mooy euh, beneen ñam bi nga xam ne moom la ñu euh, daal di jaxase comme voilà daal di ko utiliser comme rek li nga xam ne mooy masque c'est très simple dañuy daal di jël rek li nga xam ne mooy sucre sucre moom tàmm nañ ko ci gommage mais cette fois-ci sucre bi masque lañ koy daal di utiliser at li nga xam ne mooy huile d'olive at dero comme compromis bi nga xam ne moom la ñu jot a donc ngeen daal di ko jël daal di ko mélangé ba mu mélangé wu carrément gis ngeen ne loxo bi ba mu koy daal def dafa daal di am benn bouton bu rouge comme comme vous voyez donc masque bi boo ko daal defee da nga ko ciy bàyyi pendant quinze minutes ci sa yaram. donc après nga daal di ko dindi raxas ko at ndox bu set gis ngeen ne piqûre bi nga xam ne moom na amoon rougeur bi daf daal di na dëñ euh, carrément donc mi ngi noonu ñu daal di jël li nga xam ne mooy ndox bi ndox bi nag dañ koy daal di def crème donc crème bi yéen a xam crème de visage ngeen ko bëgg def wala crème euh, pour yaram bi yëpp li aussi euh, gel d'aloe vera la nga daal di ci jël quelques kuddu daal di ko mélanger ci ndox bi voilà donc boo ko mélanger ba mu homogène comme vous voyez donc lii beurre de karité beurre de coco la donc euh, mu ngi noonu koko euh, huilam moom la ñuy daal di soxla noonu ngeen daal di si jël aussi quelques kuddu sa dépend si quantité bi ngay xam ne moom ngay defar lii sungufu euh, mboq la également donc moom ngay daal di jël également daal di ko mélanger boo paree boo mélanger le tout nga daal di def sa bain marine donc bain marine baa ngi noonu voilà donc bain marine bi day daal di tax rek li nga xam ne mooy euh, mélange bi nga obtenir daal di concentré wu ba daal di transformé wu en lait de corps wala crème de visage comme vous voyez donc bu paree nag boo leen amee aussi vitamine E mën ngeen ko ci def bi defuñu ci vitamine E bi mais vitamine E dafay daal di protéger rek li nga xam ne mooy euh, euh, mélange bi ngeen xam ne moom ngeen daal di mélange pour du daal di gaaw a yàqu wala rek du daal di indi benn problème de peau donc euh, voilà boo leen pare ngeen daal di ko def Aïcha si seen euh, peau bi ngeen xam ne euh, moom ngeen di garder rek seen crème donc ngeen daal di ko utiliser bu leen neexee bu nekkee crème de visage ngeen ko soxlawee chaque soir balaa ngeen di tëdd ngeen def ko seen kanam bu nekkee crème corporelle boo leen di tëdd aussi ngeen sangu ba set daal di ko ci diw donc tout type de peau daf cay daal di ànd moom mais aussi bépp problème de peau boo leen am rek daf koy daal di dindi moo gën rek euh, euh, collagen yi ngeen xam ne moom ngeen daal di dem jëndi xamoo leen naka lañ ko mélangé ak naka lañ ko defaree Aïcha. am na solo collagène lu lu baax la ci yaram mais yi mhm. euh, ñuy jaay ci marché yi moom façon collagène bu nekk ngay gis moi je préfère nit ki mhm. defaral ko boppam. Mhm. baax na ci yaram da koy nooyal. anti aging la. boo demee ba màgget sa yaram. dafa war a set yooyu mën na defaraat sa yaram nga rajeuniraat. Euh, noyal sa yaram rendre ko beaucoup plus élastique ah yooyu noonu yëpp ay bienfait la mais aussi y a des fruits tropicaux yoo xamante ni mën ngeen ci trouver collagène mhm. euh, lu ci mel ni les fruits rouges la euh, comme goyave mhm. goyave aussi boo leen koy utiliser mën ngeen trouver collagène bu naturel parce que fruit la bu nga xamante ni riche na trop ci wàllum collagène dégg naa aussi bu bu kii bi bu weex bi rek avocat aussi mm-hmm. baax na boo koy lekk euh, les bienfaits du collagène mën nga ko fa am donc mu ngoog ak xeetu supp yooyu suppu yeel ah. suppu yeel aussi euh, c'est très riche mm-hmm. li nekk ci moelle osseuse bi mm-hmm. c'est <laughs> ndey ndey ndey ndey li may xoolee la xam ne après da koy muucu daal <laughs> suppu yeel bi li nekk ci biir moelle euh, yax bi c' est important yooyu noonu yëpp ay kii la ñu noonu damay compléter rek kii naa li mu wax damay yokkaat rek. alors assis collage dafa am solo. voilà ah, waaw wax nga ba wax graisse graisse bi nekk ci yax bi. Ah, di doxal fi toll nii. kii eh merci beaucoup ah c' important donc ngeen daal di essayer collagène yooyu à la maison. waaw euh, mënuñu jeexal nag tey te duñu waxtaane xew-xew bi nga xamante ni pétaw moom la ñu andi léegi léegi bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.